maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen nuyu di jël nuyoo bi di ko teg ci kilifa bu tedd gi di suñu waajur di suñu maam di suñu sëriñ sëriñ di xalif général Tijane sëriñ Mansour Mansour sëriñ Babacar Sy di sant njaboot gi nga xamante ne ñooñu ñëpp fekk ji teertu bi yi nga xamante ne moom ngeen ñu dalal leen fii di leen ci sant bu baax a baax di ci am mbégte contentement bu rëy di jiital ci kàddu gi rek moom mii mel ni bu ñu jëlee nuyoo bi teg ko ci loxoom teg nañ ko ci nuyoo nañ njaboot gi yëpp ci jaara nañ ci moom tamit nuyoo taal bi yëpp ak fépp fu ñu mën di nekk ñu teew ak ñuy seetaane fenn di njëkkee kaddu gi kaddu gi njaal ndax am na xew-xew tiis gu fi amoon te jotuñu woon mën a ñëw teewee si ko ndax xat-xat bi ñu nekkoon ñu bokkoon ak yéen nag mettit gi naqar bi fi nekkoon tamit liñ fa amoon muy suñu ngànnaay muy ñaan ñaan nañ ko fa ndax warloo nañu ko ak bépp jullit waaye loolu nañu ko tamit ak njaboot gi ndax fi ma nekkoon ma koy ma leen koy wax sama papa Cheikh Tidiane Male mm-hmm. ñëw na bu fekk ba fa ma mm-hmm. tàllal sama loxo bu ñaanal te ma xoolee ko nag ni dafa doxee tànk ñëw ci njaboot suy si Alaaji Malick Si ma di leen ci sant bu baax a baax a baax di leen masaw tamit ndax euh, ñàkk kenn ci njaboot dafa waaye nag noonu la yàlla bindee adduna te xam naa ne yéen yéen a ko gën a xam ndax loolu ngeen ñuy jàngal loolu ngeen yaare njaboot bi yëpp tànk yi nag mënta woon a ñàkk ndax gannaaw bi yàlla dogalee lu mu dogal natoo ma njiitu réew li ma njëkk a mébét gannaaw bi ma deme ba def sama prestation de serment mooy dem seeti kilifa diine yi ci réew dem ci tànku taalibe dem ci tànku doom dem ci tànku sët dem tamit ci tànku président de la république tàllal sama loxo ci ñoom sàkku ñu ñaanal ma ndax ngeen gi da mënta oyof waaye yàlla def mu attan ko te yaakaar gi nga xamante ne Sénégal yi teg nañ ko ci sama wàgg mu doon loo xamante du mos a tas ma yaakaar lañ ci lool ndax xam naa ne mi lu ko dëgëral ñaan yi ci ñaan maa ngi ko doon wax keroog ci bi ma jullee euh, ba pare doon wax ne li tey réew mi mooy ñiy toog suba ngoon guddeeg bëccëg di fi jàng mu doon ay di wasifa wala ñuy xadara wala ñuy jàng xasida wala ñuy julli rek am yéene ñaanal réew mi ndax jaaxal nañ ci li ñu gis wala bokk nañ bokk bëgg nañ yaakaar ngeen fay juddu ngeen fay law te jur jàmm loolu nag ngeen yëg ko ngeen bañ ko yëg li ñu leen di sante la te yàgg nañ leen ko sante fekk na sax tooguñ fi ndax xam nañ seen taxawaay ci réew mi fii nag ñëw fii te eh, dib kër goo xamante ne dañ ci bokk ndax boo ñëwee ci kër ñu dalal la fa ne la sa fii sa kër goro la ndax sa waajuru jabar fii lañ ko yare te xëy na yar googu ngeen def ci moom ma xam ko bu baax a baax ma def ko ci njabootam moo tax ma gis kooku ba dem ñaani ji kon fii ci dem fi bokk ñaari yow li ci tegu mooy ku ñëw Tiwaawan ñëw nga ci bërëb boo xamante ne lu ma tuuti tuuti ay at ay yooni yoon ci at wi mbooloo bu mag a mag a mag dina fi daje mu doon ci gàmmu wala mu doon ci ziar général wala mu doon sax yeneen daayira yoo xamante ne am nañu mbooloo lool jóg ñëw ziar si Sénégal yi nag fu ñuy daje suñu responsabilité la en tant que état ci man rawatina en tant que président de la république amel nañu leen kaaraange amel nañu leen ñu fu ñu dem ñu mën faa ziar ci jàmm dellu siwaat ci jàmm fekk fa tamit condition yi nga xamante ne ñi leen dalal de leen leen dalal ci jàmm ak ci tawféex ba keroog ñi fiy jóge delluwaat ci seen njaboot ci tawféex ba tax na tey rek lañ amoon réunion ak ñu yore kaaraange gi ci réew mi bokk na ci liñ fa waxe waxtaane ci tomb ya ziyaare général bii nga xamante ne egsi na ba pare ñu ne leen doonte CRD yeeg yu demee noonu weesu na waaye loolu yëpp pour waajal bés moo doon wax ministre de l'intérieur toog général Jean Baptiste Tine ne lépp loo xam ne mën nañ ko nañu def lu raw lu ñu mën pour que ñi nga xamante ne ñooy dem ci ziar général ñi fay fekk ji condition kaaraange yëpp ñu matal ko te matal leneen lépp loo xamante ne taalibe bi fay daje dañ ko fa soxla kon ma ko koy feddliwaat rek ci kanamam ak seen kanam euh, lu ma ñor la lu ñor état lu ñor président de la république ak gouvernement bi nga xamante ne am na ñi ci àndal tey gis ngeen leen présenté nañu sànq ñu bëri ci ñoom bokk seen njaboot noonu la nañ ko fas yéene taxawoo ci këru diine yëpp ndax fonk gi ñu leen fonk ndax xam lan mooy seen taxawaay ci li tey réew fii tamit sumba nañu fi liggéey bu am solo muy jumaa ji taalibe yi macha allah nañ ci def ci seen kéemtalaay kattan xaarul ci kenn ndax dañ ko seen diggante ak seen boroom def ko seen diggante ak seen kër ndax mag yu baax ñu fi jaar li tax kër yi taxaw ba léegi dañ fi bàyyee doom yu baax ñu taxaw ci seen tànk yi wuyal liggéey bi loolu nag ci li ngeen taxaw gouvernement Sénégal ak état bi dinañ ci taxaw seen wet jàppale leen ci bu baax a baax a baax ba yéene gi ñu bu ngeen ko mattalee mu kawe seen njort ma di leen wax rek engagement wu gouvernement bi nga xamante ne ci sama njiit la nekk ak njiitu premier ministre bépp taxawaay bi ci war dinañ ko taxaw incha allah pour matali loolu ndax suñu cër la yàgg nañoo defam ci suñu programme diggante nguur gi ak diggante këru diine yi wala diine gi ci de façon générale nguur gi da ci war a taxaw taxawaal bu leer goo xamante ne daf ko assumé ndax ci ñun laïcité tekkiwul ne nguur dafa war a génne loxoom ci diine déedéet dafa tekki ne ku ne mën nga tànn diine boo xamante ne ci sa mën nga fa jaamoo yàlla état taxaw la taxawaay gi war pour nga mën ko matal noo ko bëgg ak noo ko warloog sa diggante ak sa borom kon taxawaay boobu suñu diggante jullit yi suñu diggante catholique yi suñu diggante ñi nga xam te am nañ beneen gëm-gëm taxawaayu farata la te incha allah rek nañ ko rawatina nag ci bërëb yi kóoru mag nga xamante ne mbooloo gu bare bare bare ak fuñ ci mën a nekk Sénégal ñoo fay daje kon lii li nga xamante ne bëggoon naa ko fi jibal ci kàddu waaye ku wax tamit fi mbooloo di daje wax tamit forcément soxla yu gën a taxaw ci wàllu ndox ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu dem ak dikk mu mel ni kon cité religieuse au delà tabax yi nga xamante ne tabax nañ ko ci dalawaayu gan yi modernisation cité religieuse tamit mooy jéego bi nga xamante ne gouvernement bi mën na ko def ndax ku ñëw rek am na fooy jële am nga tamit foo mébét nu war nga faa mën a jëlee li nga jël yóbbu ko feneen boo boo koy joxee ci yeneen loxo ëllëg ñooñu tamit mën a teg yeneen jéego ndax loolu mooy indi avancement kon maa ngi leen di sant di leen santaat ci seen teertu bi wax leen na am naa ci mbégte gu rëy rëy rëy di sàkku ñaan ni ma ko waxee